Caatu Ngéwél a ngi waaja Balla moo ngi waaj a dugg ci biir géew bi l'homme au bandeau blanc Caatu Ngéwél l'homme au bandeau blanc saa yu takkee bandeau bi moo ngi waaj a dugg ci biir géew waaye Yoff ko Lebu yi yaakaar ko la la la bandeau l'homme au bandeau blanc ndeysaan l'homme au bandeau blanc Romo Bando Blanc Pape Gora Ndiaye nuyu naa mon frère ziar naa la na nga def. maa ngi sant alhamdulilah caat ñëwal tey. waa caat macha allah bu mu simee ko kenn jébbi ko. dëgg la ma nga noonu. ndeysaan sama booye ngoog mais copain nuyu naa la. damaa lay charré la yow yaay kan. notre doyen mais gis nga may topp rek lan la yow yaay kan. non yow di ma di ma di ma di ma di ma di ma teg si axe di ma xaw ma nu ma koy waxee xaw ma daal. yow yaay kan nga bëggee lu ma bëgg lan la. Badou Badou 100 pour cent Découverte TV. dëgg la lan la noo tudd. maay Badou 100 pour cent Découverte.

mënuñu def lu dul xalaat bu ñu am bu rafet ci milieu bi ñu koy partagé ak yow mënuñu fuñ la mënta gis di la woon cofeel bu ñu am si yow ndaxte àdduna lu nekk si xol day feeñ si kanam te du nëbbu te séntu asamaan jarta buuxante gis naa loolu ñëw bi ku ne xaj na si xoolal ñan ñooy bénéficier ci wàllu làmb kii defar t-shirt kii confectionné sérigraphe infographe kii confectionné ticket di defar t-shirt casquette ñuy loué barrière jaay ndox ñuy jaay fruit sëriñ si ñi nga xam ne ni day ñoom ñooy sécurité yi dafa bëri da si bénéficié wu ah, ah. rawatina tey ñuy ñëw di liggéey si les caméramans ah, les reporters ku nekk di si gis sa bopp kon tey lamb lañ ko gën a foog moo waral ma ne seen doosaman def te buuxante te képp ku soo ñëwee liggéey si bala nga am lu loo yóbbu sa kër kon lamb nañ les stadiers qui sont là au stade uh-huh. ñuy nettoyer stade bi uh-huh. et cetera et cetera et cetera loola waral ma ne seen du asamaan mais dama lay gis nga yor caméra waaw di daw rek di daw waaw lan lan lan waaw donc uh-huh. comme ni ngay defee rek c'est juste que lu tax tey par exemple ñuy daw ay études non non non j'ai fait les études après les études j'ai fait ma formation de journaliste. tu vois mais vu que moi moi je suis dans l'animation et, dans la présentation, je me suis dit, bon, je ne vais pas trop progresser sur le journalisme. Parce que ça progresser sur le journalisme trop, Parce qu'un journaliste doit faire la promotion d'une personne. Et maintenant, quand tu es un présentateur, quand tu es un animateur, tu peux gérer la communication des personne Tu vois C'est pour cela que j'ai choisi d'être un reporter, mais pas un journaliste. Mais j'ai fait le BABA, le BABA en journalisme. Je connais le BABA en journalisme.

tey ah. xeebalu ma kenn sëriñam nit ah. doo ko xeebal ku mu bëgg nit doo ko xeebal bësam nit doo ko xeebal sëriñam ah. sëriñ Babacar foo ko woo mu wis mais du la bàyyi te waxoo si Modou Lo Boy de lamb doy waar ku nekk am na lu arrangé si lamb ku nekk am na lu la arrangé ku nekk am na lu arrangé si lamb xeex mënul ñàkk. waaw mais Modou Lo bis bu nekk day ma corriger si Boy mu nam lu neex. te ñoom ñaar. ku nekk li lay arrangé. sa bëre yomb. waaw faaw nga duma moo tax xeex mënul ñàkk. mais su fekkee wéccet si wàllu bëre. waaw Modou day xeex di bëre. waaw Boy Niang bëre. day xool nu mu la daan na. mais attention Modou Lo. pourcentage. waaw 60 40 la. 60 40 Modou Lo 60 Boy Niang 40. 40 mënul ñàkk. mënul ñàkk Modou Lo ñi mu bëreel la. bëreel Bombardier. Balla Gaye 2. tant d'autres. Ama Sène. mu da ngay limaat. Gris Bordeaux. da ngay limaat. Lac de Guiers 2. da ngay limaat. Baye Mandione. da ngay limaat. Boy Kayré. Boy Niang nag tafa Modou Lo la. waaw fu Modou Lo jar jaar na fa. dëgg la mu jaar si Lac de mu jaar fa. jaar si Balla Gaye mu jaar fa mu jaar fa mu jaar si Baye Mandione. ñu bokk ay mbir yoo xam ne ni mi ngi noonu. dëgg la te Boy su ñëwee ni tey. maa daan Balla mi sonal Modou Lo. waaw loolu laa duggee si biir géew bi. waaw bu subaa mun na am lu ko bett. mun na am lu ko bett. lamb laa lay wax. mais ban yow lamb kat yow da nga yow. mais déggoo li ma la wax yow. yow li nga fi analysé. yow ku la topp say bind. Ah. kon kooku yàgg naa dund làmb. dëgg la ñu si bëri tey jii nii fii tey si làmb. xam nga ni ma lay wax. dëgg la tax ma jox la respect ma la jox. dama laa xam moo tax. merci. gars si bëri tey la neex. waaw ñu yor micro. waaw daanaka il faut da dama la métier. waaw ah. il faut savoir l'éthique et la nga jox ko cër. gis naa loolu. te yow suñu mentor nga. jërëjëf dama lay jox cër. jërëjëf Badou ba keroog tey jii nii saa yi mi ngi noonu. na yàlla defal la jàmm. merci Badou. wax sa mbaaxu waay. Ah. du wàññi dara sa baax. yaa baax te yow li nga def lu baax la. jërëjëf Badou Ibakan TV suñu yëf la. te yow xam nga bu muy soog a yëppi. waaw chaque jour ñu waxtaan. chaque jour ma ne la grand defeel nii. dina baax dina baax. te soo xoolee. Ah. dañuy bokk ay mbuus. bu ah. gars yi da ngay gis su gars yi nekkee fee. waaw ma daw. dem fii dem fii. dëgg la c'est pour internautes. des choses qu'ils ne voient pas dans le stade. su ma 100 000 abonnés yow laa koy trophée bi. ñoo ko bokk. maa ngi ci 80. dana je vous le partage. et Inch'Allah, on fera des des des des des des interviews. ensemble. loo soxla ci man. non yo. la porte est grandement ouverte. dañuy waxtaan. on va partager la porte est grandement ouverte. bonne et heureuse année à tous les internautes de Ibogan TV. merci. 2024. waaw soo yu année de succès. merci. pour ñun ñëpp. amiin amiin gis suñu bopp. amiin te xaar leen ñu 2024. waaw ba 200 pour cent découverte. waaw ak Iba Kane. Ah. affaire yu garaaw. incha allah dinañ ñëw di waxtaane làmb. dinañ ñëw dinañ indil mbër bu si nekk. waaw ay spécial. incha allah jërëjëf.